kii laa Cheikh Ahmed Aidara bismillah cantakoon ya tuxu nañ de tribune yéene kaay ne Cheikh day la ñu tuxal jëlee nañ ko ca Thiès ke indi ko rëbës waaw waaw waaye cantakoon yi day ña nga ca buntu kaso rëbës bee loo ëpp kon ñaari téeméer ci ay cantakoon ah ña nga woon kon ca buntu rëbës kon niki démb lenn dong la taalibe Cheikh bi wax de mooy ne Cheikh bi deful dara ba dara jee génnee leen ko fi ngeen ko denc yéene kaay gi ne Cheikh Béthio ca boppam kon lu tax ñu teg ko loxo kat mooy rey nit allahu akbar Ibrahima bokkum ne loolee kon du ah, nga xam ne kon indi nañ ko ci Cheikh Béthio Thioune nii dara ko ludul mer ak tàng yi nga xam ni kon moom la ñu nemi ko ci askan wi di tension sociale bi ak gay na yi nga xam ni kon waa Côte d'Ivoire door nañ leen kilifa yi fi mu nekk nii bopp nit ñi la ñu bëgg a tourné divertir kon nit ñi ñu jublu kon ci wàllum Cheikh Béthio réew mi quotidien ne Cheikh Béthio moo mais lànk na ndaari tëdd ca suuf ne dootul lekk i laas ko dëgg la nee na du lekk waaye la mu bëggoon kon mujj na koo am de ah ngir wàllum kaaraange di wàllum sécurité ci mbirum lekkam googe Cheikh ki nga xam ne maanaam moo koy toggal di cuisinier personnel am ah moo koy toggal ba pare moo koy indil kon lekk ga yéen a xam ne nag ñoom lañ dénk kon wàllum kaso yoo jee di administration pénitentiaire ya ñoom tam indi nañ ay explication de xam leen nanu lan moo tax kon ba ñu jëlee Cheikh bee jokkoon ca kaso Thiès bee indi ko nga xam ne kon ñoo doon seet si Cheikh bi di wisit yi ëpp na junni daanaka jàpp ne nag way mbootaayu xeet yi Nations Unies la ñu ci ñi nga xam ne kon caabi da leen a féete ginnaaw seen wàllum kaaraange sécurité moo tax kon ñu indi Cheikh Béthio ci diwaanu Ndakaaru gile waaye taalibe Cheikh Béthio ci tribune yéene kaay jàpp nañ loolu dëkk indi boo xam ne yow attekat ba yor kon dossier wu seex bi yëgul dinul daaw seex beeco ci la populaire ne lépp loo xam ne kon dal na sama baay bii luy njig Macky Sall lay njàkk ki Sall la i Serigne Saliou Thioune gël jàpp ne waaw parce que ñun dañoo yaakaaroon ne ay nit yu mat ay kilifa la ñu ko seqal moo tax ñu ne woon pat pataaral seex bi ci boppam nañu kon bu leen yëngu noppi leen waaye nag maa ngi wax koon ci turu njaboot gi yàpp nit ñii man sëñ Saliou danaa jàkkaarloo ak ñoom laa ilaha illallah te dañoo bëgg ko lépp leer lépp a ngay leer ca dorog bi nga xam ne moom lañ doon jaay ta mbuur enquête yéen ne enquête bi nga xam ne kon ñu ngi koy def ci cocaïne dorog bu foor boo nga xam ne kon la ñu tegoon loxo kon ca hôtel Lamantin Beach waaw lig ni ko laay day man ca katu gendarmerie laa ilaha illa allah le pays au quotidien ne moom sax daa tukki waaye moom promoteur bi ñu ngi koy xaar ci Sénégal gi la de jabaram ci boppam kon ñu ngi koy harcelé ba tax na jokkoon na kon ak gendarmerie yéen a na ñoo xam ne nee nañu danañu jël ba kanam laa ilaha illa allah tey laalal bant maa wax lii ñi nga xam ne kon mooy jaay drogue bu for boo bee di ca yëngu narcotrafiquant ya waaw ñoom daal dañoo xalaat ne kon lig ci boppam moo leen jéebaane moo sennal xabaar ba ba njiital Lamantin bi sugoo gee ñu teg ko loxo tey dëkk ba miti na waaye it makka miti le populaire ne bu jaaj nga xam ne kon ña nga nekk ca màkka gee boo sàgganee kon danañu wàcc ca mbeddu màkka yaa kon amal fa ab doxum ñaxtu laa ilaha illallah ñeme wuñu ko maa la wax li le ndax ay jafe-jafe kon la ñu ñoom daal fi mu nekk nii la ñu bëgg mooy ñu delloo leen ba samba alerte yéene kaay gi ne man daal damaa yaakaar ne xanaa aju màkk gii ñuy organiser ci Sénégal gii daa ay gaaf wala cata ca dugg cata dugg ah ah yow man damaa xam ne yow at bu ne at bu ne commission bi kon il faut mu dund jafe nu mel te yàlla na ne bu nekkit yenn ca nit ña nga xam ne ñoo nekk ca commission boobee dañ leen di changé waaye nag gis nga boo sàgganee ci ay waxtu yu néew lëf li jafe-jafe bu bu ñu ko lijjantiwul ah waxuma la commission bi sax waaye deru Sénégal ca boppam kon mën na ca yàqu parce que ujaaj ya nga xam ne kon ñoom ñoo fa nekk élage yaak ajaratu yow loolee ñu ne fay daw kon safaak marwa danañu wàcc kon ca mbedd màkka yoo jee daw fa amal fa ay doxub ñaxtu ngir lu ñu dugal kon seen biir laa ilaha illallah te lu ni mel kat mësta am ca baytilaahil haram goog jee di màkka bërëb bu tedd ba tas dëkk bi yëpp tës la Sud Quotidien ne jikko wëyu fitna gi nga xam ne moom la ñu fi nimiku ñàkk si luy sëgi nga ma di indiscipline goo xam ne la ñu fi nimiku maara day taali def lu ne wee nga wee ngaaral te dara du la ca fekk oyof sër yolom geño contre valeur Sénégal daal fi mu nekk nii daa gil bi tee dara jaratu fi lépp lamb libération yéene kaay ne la lamb kay mooy suñu avion bi pointe de Sangomar bi président daan yéeg maa la wax lii xam nga dañ ko doon jaay waaw benn waay doo nga ca waxaale te un milliard kese la daa lamb un milliard cent millions la Macky Sall kon fas yéene yëkkati kon dugal ko ci xew xew diine yi nga xam ne kon ñoo am biir réew mi laas ne koppar ga kay ca budget wu ministère intérieur la yi tamit danañ leen jox kon fukki millions xam ne moo taqar naa sa diggante Alaaji a jëm yéene kaay gi ne léegi kay amatul xel ñaar mooy noonu fédération sénégalaise bu football bu njëkk ennemi numéro un waaye El Hadj nag booy xool ba ci biir la mu bëggoon mi koy bëgg a am ah, ma ne alaaji Diouf a ngi bëgg a am nam doomu nday ba ko maa la wax lii parce que El Hadj Diouf fi mu nga xam ne kon ñoom lañ dénk wàllum football googee di fédéraux yi ñuy wax ne oto yu alaaji Diouf yaak oto wu xaw ma ña defoon gay ndey xaw na ñoo laalante ca booru hôtel Radisson xaw ma fële ca ca ca ca VDN baak yoo jee ah waaye yow ma ne cortège su El Hadj Diouf nekkul ne El Hadj Diouf doo nga nekkoon ca biir Fadiga nga woon ca biir Alassane Ndour nga woon ca biir Moussa Ndiaye nga woon ca biir waa lan mooy ndeyuk nag léegi nag ñu signe Alaaji Diouf fang rek ñeneen ñe nag Roger Mendy ci l'office yéene kaay ne nañ leen ko wax El Hadj Diouf mën naa football ci équipe nationale bii man Roger Mendy nekkul ne damaa bëgg a poste entraîneur wala yooyu damay wax dëgg El Hadj mën naa football kon ci équipe bii jaay football ba libération yéene kaay ne ñiñ dénk football bi ci Afrique gii di waa CAF ah leeral nañ carte gi léegi Côte d'Ivoire gagné na résultat ba génn na Gaston Mbengue ne ma nekkoon Augustin moo def na ko premier vice président fédération tekki na kon ndomba tànkam laa ilaha illa la loolooy tës tës am na kon cog Sédhiou ah tribune kaay ne ndaw si daal nee mooy ami collégien mi way moom daal Sédhiou gépp nax na leen xoolal ma photo bi vert yu noir ya raay band yu ñuul ya xoolal ma greffage bi mu wàccee ami collégien firi ndekete du moom i nday cuun mii nga xam ne jaaykatu cuuraay la jaar ca rajo communautaire Gabo FM ne leen ami collégien yegg ko rajo ba mu nettali jaar jaaram gu miti yaram bi ñeeng ñeeng ñeeng patiti patata ginnaaw rajo ba bu adda nuyu ba la fa ñuy baalee kon soirée ba ca ma yegg si fan si yëpp staff ami collégien mi trian waaw ne ami collé tey du mën a way ndax wàllu wér gu yaramam <laughs> laa ilaha illallah cay allah ji liyey tës ku bëgg a xam nag histoire bi yëpp fan la mujjee nii ni nii nii nii nii xaar ma ci tës ji ma dikk alaaji dikkal xaar ma ci tës ji ma dikk